bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihil amin seydina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk jullit ñi asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk groupe Rahma ñoo ngi leen di nuyu di leen di ziyaar mbokk yi ñu dellu si waat yéen si sunu émission bi nga xam ni moom la ñu amal mardi bu jot ci waxtu bi muy laaj tont tontu question réponse ñu ci ànd ak oustaz euh, Serigne Samb euh, kon mbokk yi li ñu def rek mooy ñu bàyyi oustaz nuyonte yéen ba pare ñu doog a tàmbale laaj ak yi. kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ustaas bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki jullit mbokki ah, groupe arahma ñu ngi leen di nuyu di fas yéene di bandikoo sunu borom tabaraka wa taala programme bi ñuy amal mardi bu nekk ci waxtu wi kon bismillah ustaas Lawson mën nga ñoo tàmbali ci laaj yi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ya saas alhamdulillah laaj bu njëkk mooy kii dafay dafa nekk biir France France lay dunde nee na am na benn société bu mu fa am benn entreprise am mu ci am salaire ci boppam génne salaire boppam nee day bëgg génne asaka waaye xamul nu muy def ndax société bi lay génneel asaka walla moom ci salaire boppam lay génnee asaka waaw mu ne loolu la buggoon xam ne nu muy def ban la ciy génnee waaw ndax laaj bi leer na salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah euh, mbokk mi nga xam ne dafay laaj mu ne dafay liggéey France am fa société waaye tamit mu am salaire boppam mu ne muy laaj ba xam ndax bu génnee asaka jotee ci salaire bi lay génnee asaka ji wala ci société bi lay génnee asaka société ba su fekkente ne moo moom lépp ba noppi am salaire feneen day calcul la muy am ci société ba par at ak lam am lépp lam denc bu at mi matee lam denc ci loo xam ne moo ko moom nga xam ne alali boppam la moo xam ci société ba la jógee moo xam ci salaire bi la jóge lépp lay boole kalkin ko la ca war a génn mu génnee ko ca maanaam alal di jóge ci société bi ak liñ koy fay ci salaire nekkul ñaari alal waaye jenn alal la ndax ñoo bokk benn boroom comme ñoo bokk benn boroom nag moom mi nga xam ne moom moo ko moom da koy boole lépp kalkin ko su matee nisaab euh, at ma dellusiwaat mu génnee ci lam ci war a génnee kon du séddale ñaari alal yi di wax ne alal ji mi ngi jóge ci société bi ji mi ngi jóge ci salaire bi déedéet lim moom lépp rek lay compter mu nekk benn waaw la jóge ci société baag la jóge ci salaire saag salaire baag lépp lay boole daal koy calcul daal di génnee lam ci war a génnee wallahu taala alam alhamdulilah macha allah macha allah waaw beneen laaj bi Euh, kii nee na dafa remarqué ni Sénégal marché yi dañoo salte marché yi dañoo salte euh, te gis na ni oto mbalit dina ñëw di jël ramassé mbalit ñi mbir mi jaaxal ko lool mu ne mu laaj lenn si jaaykat yi lu tax ngeen di bàyyi yéen seen marché yi di di salte ngeen di sandi mbalit yi fépp te doo leen bale mu ne laaj ki eh, jaaykat yi ñenn ci ñoom tontu ko neeku boo gisee mbalit yi nii ci marché bi bare nii dañuy wax ni boo balee boo balee sa wërsëg day wàññeeku wërsëg bi day wàññee day wàññi njaay bi maanaam day wàññi njaay moo tax day wàññi wërsëg bi bale bi day wàññi wërsëgu njaay bi mu ne waaw loolu nag mu jaaxal ko mu ne muy laajte fii ci groupe Arrahma lan la ci islaam wax salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah euh, mbokk mi nga xam ne dafay laaj mu ne dafa gis waa marse bi du ñu bale mu ne buñ leen laajee am ci ñuy tontu ne buñ dee bale loolu day wàññi maanaam seen wërsëg ngir tontu loolu dañuy wax ne loolu dafay dugg ci xeetu dañuy wax gaaflu te gaaflu googu day dugg ci bokkaale eh, comme mel ne ñiy wax ne su ma xëyee su ma dajeeg jur sàngam wala bu ma njëkkee dajeeg jigéen du ma mën a am nangam wala bu ma njëkkee dajeeg góor wala bu ma xëyee su picc naawee jóge barab sàngam jëm barab sàngam wala xeet yooyu noonu yi loolu mooy a tatayuru gaaflu loolu nag dafay dugg ci buntu bokkaale kon jullit war na koo moytu set du wàññi mukk wërsëg te xam ngeen ne bale daa bokk ci set te set dafa bokk ci li nga xam ne dafa bokk ci màndarga jullit jullit daa war di set set nag moo xam ci kër gi la moo xam ci mbedd mi la moo xam ci marché ba fépp daa war di set loolu kay buñ noonu sax di wax ne dañ naan mën naa gën a dolli wërsëg ndax dara tax ñiy jënd si gën a xemmeem si marché bi gën a mën a ñëw waaw marché boo xam ne dañ koy bàyyi noonu mu tilim bu wër ña koy ko bale kon dana tilim loolu ba ko xamee ba di fa kon dañuy di moytandiku loolu bu baax a waykat ba waxoon ne ca ceddo lu jiitu lislaam la amruka ma tadri tawaariqu bil haza wala zajiratu tayri mallahu saaniu nee na giñ naa ci sa dund ne ñi nga xam ne ñooy fëgg tëni mooy ñi nga xam ne ñooy def li ñuy wax tëni ak ñi ñooy jaj njanaaw yi ñuy naaw ñu naan penku lañ jëm ak sow lañ jëm ak ndeyjoor lañ jaare ak càmmoon lañ jaare mu ne ñooñu ñëpp xamuñu lan la yàllay def yàlla lim nar a def ajowal ci marché buñ bàyyi muy tilim wala ku dajee góor wala ku dajee jigéen wala xeeti gaaf yooyu yi nga xam ne ay gaaf la yu ñu fi fekkoon te dëppoo wut ak lislaam dëppoo wut ak alxuraan dëppoo wut ak sunna kon nañ ko moytu bu baax a baax wallahu taala alam macha allah alhamdulilah euh, laaj bi ci topp nag dafay aju ci julli la aju kii day laajte nee na dafa xam benn waay yoo xam ne euh, waxtu julli fajar wala suba luko ko julli heure bu ko neex la koy jullee maanaam bay nelaw ba bu ko neex mu jóg julli ko mun na yeewu neuf heures mun na yeewu dix heures na yeewu onze heure bu mu jógee daal lay julli waxtoom boobu waxtu suba wala fajari nee na waaye nag lu mu gën a seetlu ci moom buy euh, bu amee rendez-vous wala bu amee benn mbir bu urgent day teel a jóg julli ko sax mu dem ci jàkk ja julli fa doog dem mu ne loolu lan moo ci attey islaam alhamdulilah euh, ki nga xam ne mu ne dafay laaj waa ji nga xam ne fajar du ko julli ci waxtu wi mu ne moom daal waxtu wu yewoo rek waxtu woowe ci lay julli suba li gën a bari ci ñiy def loolu dañuy julli ci aada waaye julli wuñ ci sariya ndax julli ci sariya dafa am waxtu muy waxtu tisbaar waxtu takkusaan waxtu timis waxtu gee waxtu fajar borom bi dafa wax ne inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta julli dañ koo farataal ci jullit yi mu am waxtu woo xam ne dañ koo fixé kon waxtu yooyu ci lañ war a julli waaye ñi nga xam ne dañuy julli ci aada nag ñooy def rek waxtu wu amee jot waxtu woowu la ñuy buñ dee nelaw it moom la ñuy julli léeg-léeg ñu julli fekk waxtu weesu na bu yàgg a yàgg léeg-léeg sax mën nañoo julli suba te waxtu wa jotagut ndax su fekkente ne dañoo am yitte ngir war a génn yàlla dogal ñu teel a jóg fekk ne mën naa am boobu suba jotagut teewul dañuy julli ñoom naka noonu it bu ñu amul yitte fenn duñ jóg ngir julli ci waxtu wi waaye dañuy nelaw rek ba yeewu fekk jant baa nga ca kaw ñu door a julli yeneen julli yi tamit bu deen fekkee ñuy liggéey bu leen fekkee ñu jàpp mën nañ koo bañ a julli xala dañuy bàyyi rek ba am jot kon ñooñu dañuy julli ci aada waaye julli ci sariya kii julli ci sariya daal moom dafay sàmmanteeg waxtu julli yi lu may nag ngant loo xam ne lu mënta ñàkk la rek moo koy gàllankoor ba du julli ci waxtu yi rawatina nag jullik fajar ak julli gee ñàkk koo julli ca waxtu wa dafa bokk ci màndarga naafiq wallahu taala alam alhamdulilah macha allah oustaz kii laaj bu ci topp nag kii dafay wax ni nee na dafa dëgg benn waay di wax ni ku wax alxuraan ak sunna euh, da nga bokkaale ku wax alxuraan ak sunna da ngay bokkaale nee na alxuraan euh, waaxlu sunna yëpp bokkaale kat nañ loolu ci teg nee waaye ji nee na sunna ak lépp lu nekk ci xadis moom du ci sukkandiku nee na ci alxuraan rek la waa ji di sukkandiku mu ne waaye li ko jaaxal ci waa buy ubbi waxtaanam bu buy ubbi waxtaanam day julli ci yonent bi sallallahu wa sallam mu joxe benn misaal nee na allahuma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin lu mel noonu mu ne am na xeetu façon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom dafa remarqué ne waa ji dinañ ubbee ci beneen façon mu ne waaw day laajte ndax façon boobu teggin ni julli boobu ndax ci alxuraan la nekk wala fan la nekk waaw ne ndax ci la nekk wala ci sunna la nekk wala ci xadis yonent bi sallallahu la nekk waaw mu ne nag lu tax waa ji di jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam kayfe melokaan ni koy defee yëpp ndax ci Alxuraan la nekk xaw laaj bi leer na mu ne kooku na lan mooy attem ci islaam waaw daf naa noonu la noonu la ko laajee bu mu kuure mun na dugg laajte ok salaamaaleykum wa mbokk mi di laaj mu ne daa am kuy wax ne kuy wax alquran ak sunna bokkaale nga mu ne ci alquran dong lañuy sukkandiku a ah, loolu de xam naa ne buñ mënoon wax ne daal waxi dof joo xam ne eh, daanaka xawee su xam nu ñu koy tekkee ndax alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi yaar lañ yoo xam ne mënee su na tàggale lenn mënu cee bàyyi dem bàyyi morom ji lenn mënu cee dem bàyyi morom ji yaar lañu yoo xam ne daal lenn lañu ki bëgg a jël alquran wax ne dafay bàyyi sunna kooku ak jëlam alquran du mën a wér ki bëgg a jël sunna ne day bàyyi alquran kooku ak jàppam sunna it mënta wér ngir lislaami nit ki mën a wér ngir jàpp gi nga jàpp ci alquran mën a wér jàpp gi nga jàpp ci sunna sallallahu alayhi a wér faw da yi ndax lenn lañu sunu boroom tabaraka wa taala dafa wax ko ñun julli ji nañu wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa andil na leen ko na ko jël lum leen tere na ko bàyyi lépp loo xam ne andil na leen ko nag alquran daf ciy dugg sunnaam daf ciy dugg loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne jamono dana ñëw benn waaye ma nga wéeru ca appiliyaanam piliyaanam tal togg ay tànkam di wax ne man de damay sukkandiku ci alquran dong duma jël sunna yenn saa bi nee na kooka su boobaa nañ ko daw nañ ko moytandiku ki nga xam ne dafa sukkandiku ci alxuraani kese kooka lislaam na mënta wér wallahu mbokk mi laajam bi dafee rotoon mardi weesu te ñu woon ko mu ne dafay laaj ki nga xam ne dafay julli topp ci imaam ndax day jàng faatiha wala moom du jàng faatiha mu ne moom day def koy laaj ñu bari am ñoo xam ne dañ naan ko dangay jàng faatiha am ñu ne ko doo jàng am ñu ne ko dangay jàng ndànk mu mel na loolu dafa xaw a jaxasoo ci bopp bi ngir tontu ci loolu dañu wax ne ki topp ci gannaaw imaam su fekkente ne imaam dafay julli julli goo xam ne julli béral la maanaam day jàng ci kaw kooka de su boobaa su fekkente ne jàngul fatiha nga xam ne moom dafa déglu kooka am na addis bu mu sukkandiku buy wax ne qiraatul imaami qiraatukum kon su boobaa loola dana ko doy waaye su fekkente ne it imaam jàng na fatiha ba àggal dal def benn sakta benn noppi bu gàtt diggante boobu ma noppi moom mu gaaw jàng fa fatiha ju gaaw jàng ko ndànk balay imaama jàng saar su boobaa loolee it ba tey bu ko defee baax na daal di jël xadis bi nga xam ne mooy wax ne laa salaatale man lam yaqra il fatiha kon ki topp ci gannaaw imaam imaam ji di béral su fekkente ne jàngut mën naa doy loo xadis bële di wax ne qiraatul imaami qiraatukum su boobaa loolu teewu julleem dana wér mazhab malik ci xadis boobu lañuy ñuy sukkandiku bu ko neexee muy jàng waaye balaa muy jàng day bàyyi ba imaam jàng ba yeggal waaye jamono bi nga xam ne imaam day jàng moom da koy déglu su imaam jàngee ba yeggal nag diggante bi muy noppi balaa muy jëlaat saar mu gaaw jàng fi faatiha ju gaaw su imaam day jàng saar mu déglu ko kon su boobaa dana ko doy su fekkente ne nag imaam dafay julli julli goo xam ne dafay yalu julli goo xam ne imaam day yalu su boobaa moom bu imaam day jàng nay jàng ne moom kon ki topp ci gannaaw imaam. imaam di béral su boobaa su imaam béralee ba jàng fatiha ba pare bu nee tekk mën naa jàng fatiha loola baax na dara nekku ci su yàlla dogalee tamit moom mu féete woo déglu rek jàngul fatiha ba léegi teewoo julleem baax na ndax imaam daf koy yóbbaale ci am njàngam su fekkente ne imaam day yalu nag su imaam jàngee fatiha ak bu bu imaam day jàng nay jàng waxtu wi nga xam ne imaam a ngi jàng moom itam waxtu woowu nay jàng di jàng ndànk kon daal loolu mooy li gën a wér ci eh, masala mooy mi nga xam ne daf koy laaj ak di ko laajaat lu baree bari bu toppee ci daal su imaam dee béral nay jàng gannaaw bu imaam jàngee ba noppi su imaam dee yalu na ak imaam di jàng waaye su imaam dee béral te jàngul tamit teewul su boobaa na wallahu taala alam eh, laaj bi dafa ci kii nga xam ne dafa ne alxuraan kese lay jël nee na julli bo muy julli nee nañ julli boobu muy julli maanaam julli si yoon bi sallallahu alayhi wa sallam te mu koy def te mu koy ubbee ci waxtaanam loolu lay laajte loolu ci lu ci ate uh, islam waaw xanaa ma dellu siwaat ci laaj bi rek bu mu gën ki nga xam ne dafa ne ci alxuraan kese lay sukkandiku Euh, laaj bi mo de woon ndax maanaam kii day ubbee buy ubbee ci waxtaanam day ubbi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli boobu muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci waxtaanam ndax loolu ci alxuraan la nekk wala ci xadis yi yonent bi sallallahu alayhi la nekk ci xadis yi la nekk wala ci sunna gannaaw waa ji dafa dàq sunna xadis mu ne loolu fu mu ko war a jëlee euh, mbokk mi eh, ba tey feeñ ñëw na ci laajam bi mu ne ki nga xam ne day wax ne moom day jàpp ci alxuraan kese waaye buy ubbi waxtaanam da koy ubbee julli ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne ndax loolu dafa ñëw ci alxuraan wala déet la chaque ne loolu ñëwul ci alxuraan luy tegtale ne kuy tàmbali ay wax na ko tàmbalee ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ki koy def eh, xëy na da koy teg ci xelum boppam wala boog. contradiction dal ko mooy wax ne moom kat du sukkandiku ci hadis ba noppi ne ma ngi cee sukkandiku te yëgu ko kon loolu contradiction rek lañ koy tuddee waaye loolu moom nekkul ci alquran alquran lenn luy firndale ne kuy tàmbali ay wax dangaa war a tàmbali ne ci yonente bi daal wax laa xawla wala quwata illa billah wax sa yeneen i baat dooroon gu biir wax ja loolu dara lu koy tegtale ci alquran nekku ci kon contradiction rek la te mooy tanaaxut wallahu taala alam alhamdulilah macha allah euh, laaj bi dellu waat na mooy bii nga xam ne kii di laajte waaji ji bañ a julli euh, waxtu yi julli suba yi ci waxtuwam waaw di ko julli neexee ci waxtuwam nee na ndax ñàkk julli woowu ci waxtuwam ndax daf ci am bàkkaar wala ci am bàkkaar mun a xam ne ni mandarga naa feex la waaye nee na est loolu ay bàkkaar la wala du bàkkaar waaw loolu loolu lay xam alhamdulilah euh, ki nga xam ne dafay sàggane waxtu julli yi nga xam ne du leen julli seen waxtu ci lu dul ngant kooku kay da cee am bàkkaar te da cee am mbugalum yàlla bu ëllëgee borom bi tabaraka wa taala nee na ca suratul maun fa waylun lil musallin alladina hum an salaatihim saahuun tuskare mbugal ñeel na jullikat yi ñan alladina hum an salaatihim saahuun ñi nga xam ne dañuy sàggane seeni julli waxut ñi nga xam ne dañuy juum ci biir julli gi déedéet waaye ñi nga xam ne dañuy saggane julli gi duñ ko def ci waxtu wi wala duñ ko booleeku laab wala duñ ko booleek jublu xibla wala duñ ko booleeg teewlu nga xam ne daal maanaam dañu sàggane jëmmi julli gi ci boppam ñooñu suñ borom nee na mbugal ñeel na leen bu ëllëgee ci sawara kon loolu bakkaar bu rëy rëy la ñàkk julli ci waxtu jullit bi war na koy moytu lu may ci ngant loo xam ne amu ca menn pexe nga xam ne euh, day ngant loo xam ne lu wér la lu ñu xam la lu dul lool rek dafay dugg ci aaya bi kon loolu bakkaar la wallahu taala alam alhamdulilah macha allah jërëjëf oustaz kon mbokk yi ñoo ngi yem fii bi mooy laaj rot ci bés bi tey kon ñoo ngi leen di nuyu di leen bu baax di joxante rendez ci mardi bi di ñëw incha allah euh, andi si ak oustaz Samb kon oustaz asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu groupe Ar Rahma asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.